cheikhul xadim wéyal ñu ko ci jawhatu nafis mu ne bi nga xamante nii ah, ñëwal na ko moom sunu yaay sa ah, benn jigéen te lam ca wax mooy kii de ku gudd am bi ci la mu ne ko fa saqat mu daldi wëcculoo ko moom yonent bi sallallahu alayhi nee na mu wëccu lumbu deret wala nga ne dogitu yàpp léegi mu ne ko moom yonent bi sallallahu alayhi wax na seexul xadim ne seen yonent bi ne ko kii lii lumbu deret bii de wala dogu yàpp bii bu nekkoon ne rees na sa biir mantu ñàkk mukk bu ëllëgee nga tàbbi safara donte que ñu ngi lay askanale sax jëmale si man askanale googu ñu lay askanale si man du la jëriñ dara su boobaa bon nag ñu bàyyi xel bu baax bon ci wàllu nga xam ne bon ki nga xam ne mooy soxnaay yonent bi sallallahu alayhi gannaaw moo wax lii ci gannaaw nit mu nekk baatub jëw bon yonent bi saa salaam wëcculoo ko mu wëccul lu mu deret wala dogitu yàpp mu gëñal ko na ko lii bu reesoon ci yow mëntu ñàkk nga dugg safara bu ëllëgee donte ko ñu ngi lay askanale si man bon a rawatina ñu nii bon ñu bàyyi xel moom jëw moomu bon nag yonent bi saa salaam di wax ne maa ngi leen di wëttu ndikuloo jëw ndax jëwkat moo gën a tar njaaloo ndax naka borom njaaloo moom dana njaaloo tuub waaye su tuubee sunu borom tabaraka wa taala nangul ko tuubam waaye ki nga xam ne moo nekk borom jëw sunu borom du ko jéggal jëw ya muy jëw lurut dafa dem ci kam doon jëw mu jéggalu ko ba mu jéggal ko bon loolu dafa nekk tooñ yoo xam ne bon diggante jaam bi ak jaam bi la sunu borom nag day màndu ci diggante boobu bon nag yow jaam bi na nga fexe ba sa diggante ak sa moromam jaam nga wëttandi ko ci bàkkaar yu mel nii nga wëttandi koo jëw ndax kat bu nekkee ne yaa ngi koy jëw te bi nga koy jëw nii jégguluwuloo ko ba mu jéggal la ah na la wër na bu yowmal xiyaamee sa jëf yu baax moom leeni jël jox ko walbati ko jël yow say jëf yi nga xamante ni moo nekk jëf yu bon deel jëfam yu bon wala jëfam yi xam moom la jëfoon ci are céecam ñu daldi la ko sëf yow mi nga xamante ni yow a ko doon jëw kon <coughs> nag loolu bokki ñu bàyyi ko xel bu baax si wàllu jëw moo tàbboon su boobaa dangay dal di doon koo xam ne dangay dal di perte wa rodd minu kullu maa xat xamala xamila liman bihim faxala maa xat bon nag su booba lépp loo xamante ni moom la defoon dañ koy jël daal di ko delloo ñi nga xam ne ñoom la tooñoon ci ay jëfam yoo xam ne jëf yu baax la moo tax Cheikh Xadim ne day mujj bon bu boobaa nekk koo xam ne ku perte la gannaaw ga nag gannaaw bañ ñu roccee ay jëfam yoo xam ne jëfam yu baax la lépp loo xamante defoon na ko ñu jox ko ñi nga xamante ni ñoom la doon tooñ bon nag loolu lu jar a bàyyi xel la ndax foofu benn yiw du fa doy bon na yow jullit bi na nga góor-góor lu baax te bañ a jëw sa mbokkum jullit ndax dem ba foofa yóbbaale ay xaj yóbbaale ay jaamu yàlla yoo xamante ni yu ay xelleen ci jëf yu baax nga dem ba mujj lépp loo xamante ni amoon nga ko ci jaamu yàlla ga nga mujj loola nga perte ko ñu mujj màng la yóbbu la safara loolu nag mbokk yi tooñ say mbokki jullit dana ko yóbboo ci seen alal wala seen der bon nag nañ wëttandiku li nga xamante ni moo nekk jëw te ñu xam ne bon jëw moom lu jara a bàyyi xel lu jar wëttandiku la waaye itam yow miy jëw waaye kalaay déglu ak yow yéen a yem ab xàtte rek si jëw moo tax wa samxaka wa samxaka euh, wa samxaka anil samaay sa wa samxaka sun anil samaay xanaa sa sa sa dégg na ko ñoŋal walis ci jëw ngay dégg li xamante ni mooy wax ju ñaaw ndax yow mi nga xamante ni ak ki koy def yéen a yem yéen a bokk yem ab àtte rek ci li nga xamante ni bon mooy wàllu wi nga xam ne mooy wàllu jëw bon nag yow mi nga xam ne yowee borom xel na nga wattandiku ki nga xamante nii mu ngi jëw ndax jëw kat nekk loo xam ne bon lu araam la te yow mi koy déglu yaa moom bon yéen a am àtte bon nag bul déglu ki nga xam ne mooy kii jëw bu nekkee ne dem na ba bëgg a andi jëw yow seetal neneen noo xamante ni moom ngay def ba mucc sa kàllaamaam yooyu nga xam ne mooy moom lay waxta nekkut ci kanam ka xam ne moom lay moom la koy wax bon na bokki loolu jar naay bàyyi xel moo tax alxuraan di ñu wax ne bu ngeen déggee ay waxi caaxaan na ngeen ko wëttan na ngeen dumóoyu wi saa samioo laxwa ardu anu wa qaalu lanaa ahmaalunaa wa lakum ahmaalukum wa lakum ahmaalukum su ngeen déggee ay wax yoo ne waxi caaxaan la <coughs> na ngeen dumóoyu wax jooju nga xam ne mu ngi koy wax su ko defee yow nga ne samay jëf ma la ñeel seeni jëf yéen la ñeel bon na nga wëttandiku bu baax ci wàllu woo nga xam ne moo nekk wàllu jëw yow mi nga xam ne jullit nga te bëgg bu ëllëgee buñ la fayee say jëf nga daldi kontaan waaye itam lépp loo fu yóbbu ci tiyaabo mu yokk waaye dara bañ say manqué moo tax bon ba tey Cheikhul Xadim ni mu bañee woon jëw nga xam ne bon sëriñ bi am na benn bis mu ne bu leen walaan seen dàgg waaye bu leen lakk seen dàgg waaw bu leen walaan seen dàgg te bu leen lakk seen dàgg mu ne walaan sa dàgg nag mooy jëw ab jullit nee na ab jullit bu nekkee ne yow nga koy jëw dañuy jël sa yu baax da ko jox bon nag kuy jëw ab jullit boo xam ne jaamab yàlla di jaamu sunu borom yow na la wóor na la say jëf yu baax yépp ñu ngi koy jël di ko jox moom mu nga xam ne moom ngay jëw bu leen lakk seen dàgg nag mooy jëw ab yéeféer moom la bonam leen jël da ko xapp sa sa sa yu baax muy koy lakk bon nag loolu jar naay wattandiku bu baax a baax a baax léegi nag loolu ah, bi mu ko waxee Serigne ma Diop Samb sàmm ko man de dama foogoon ne sax jëw ab yéeféer dara nekkul sa waaye sëñ bi daf ko tontu ne ko moos xanaa ngeen jàkkaarloo bon nag gannaaw ab yéeféer kese ngay jëw am ngay wax gannaawam dara mu nekk jëw bon nag rawatina sa mbokkam jullit te kat jëw li nga xam ne yaa ngi koy wax sa mbokkum jullit te loola ngay wax moo nekk dëgg ca moom bon loola moo nekk ab jëw bu ko doowu nag danga koo sosal bon nag jëw daal jar naay wëttandiku jar nay bàyyi xel te bàyyi xel ku baax ci wattandi ko ndax li muy jural jàmbi bi bu ëllëgee <coughs> ba na bokk yi lii nga xam ne moo nekk suñuy nopp waaye ak suñuy làmmañ yépp sunu borom bi mu ñu koy jox nañ wóor ne jëw taxutoon muy ñu koy jox nañ bàyyi xel bu baax bët yi sunu borom tabaraka wa taala bi mu ñu koy jox xool jëm ci lu araam taxutoon sunu borom tabaraka wa taala di ñu ko defal nopp yi noonu lépp lu ci juróom-ñaari cër yépp sunu borom bi koy bind pour ñu jaamu ko ci moo tax ñu bind mu bind ko moo tax bon ñoo ne ci addis nee na ñaari bët dañuy njaalo ndax lañ mooy lan mooy seen njaalo mooy xool jëm ci lu araam xool jëm ci jigéen yoo xam ne ju araam la ci yow waxuma la sànq wëlbatiku sax da ca waxam bokk na ci yooyu bon <coughs> alxuraan dañu ko wax mu ne qul lil muminina yaquduuna min abasarihim wa yaxfasu furujum ndaxal julli ñi na leen yow yonent bi saa salaam ñu gëmm seeni i bët wattu seeni pëy ba nag nanga nga yow jullit bi ci lépp loo xam ne lu araam la nga xool jëm ci loolu ba nag dana war daal ba tey ci ab jullit mu fekk ak déggam ci lépp loo xam ne daay bàkkaar daf koy bàkkaarloo ca la muy dégg mu fekk ca ab déggam yu mel ni kenaan lu mel ni jëw rambaaj mboosóor fen yii nii yëpp ab jullit daf ko war a wattandiku ndax bokk na ci yi nga xam ne bon ay bàkkaar la bokk na ci nga xam ne waa day waral bu ëllëgee sunu boroom teg la am mbugalam wa kalaamu annaabiyati ak waxu jigéen jigéeni jàmbur mooy koo xam ne du sa soxna maa sa du sa ko ci Argentine kooku bu boobaa à làmmañam bi maanaam waxam nga la ko dégg bay caay bànneexu loola dafa nekk loo xam ne bon lu araam la ak yeneen yoo xam ne yu mel noonu la ni ko sunu borom di waxee ci benn ci alquran inna sama wal basara wal fuaada kullun ulaika kaana hanu masula yii nga <coughs> moo nekk moo nekk dégg ak gis ak xol yëpp dañoo nekk yoo xamante ni bu yomal xiyaamee dañ leen di laaj mooy dégg ak gis ak sa xol bi yépp dañoo nekk yoo xam ne yomal xiyaam dañ leen di laaj mu ñëw ci benn walla mu ñëw ci ay xibaar ñu dañ laaj yowmal xiyaam doomu aadama bi li maa samita yax lam yaxyu làkk samaahu ana yow lu tàng doon déglu la nga xam ne daganu toon nga da ko déglu waaye tim ana lan moo waral nga xool nga doon xool jëm ci la nga xam ne daganut ngay xool jëm sa loola waaye anna lan moo doon nga doon dogu lan moo waroon nga doon dogu jëm ci loo xam ne daganut ngay dogu ca loola yowmal qiyaam dañ lañ koy laaj muy nopp muy dégg muy gis yépp dañ leen di laaj yowmal qiyaam lii nga xamante nii moom leen gis moom leen doon dégg ba lu ci nekk rek jaam bi war na cee bàyyi xel ci loolu nga xam ne moo nekk ci wàllu cëram yooyu nga xam ne su yowmal qiyaamee danañ ko laaj inna sama wal basara da fuaada kullun ulaika kaana anu mas'ula ñoom ñëpp dañ leen di laaj bu yowmal qiyaamee ñoom cër yooyu noonu bon na bokk mi na nga bàyyi xel bu baax ci wàllu jëw rawatina bon sa mbokk nga jëwat nga di ko jëw di yàq ab deram loolu jar naay ku baax waaye yow mi nga xamante ni bokk mi yaay déglu kii jëw yene ab àtte ci wàllu woowu nga xam ne moo nekk wàllu jëw nga xam ne bon lépp luñ la wax ne bu yowmal xiyaame ci doon jëw dañ ko koy àtteewoo yow mi nga xamante ni yow déglu kii jëw su boobaa yene yem àtte bon nag na nga yow mi nga xamante ni yow ab jullit ci déglu ki nga xamante ni mooy kii jëw ndax bokk na ci yooyu nga xam ne kii jëw da ko war a wëttandiku wala kii déglu jëw daf ko war a wëttandiku bu baax ci déglu goo xam ne moom la koy déglu nga xam ne bon moom it bàkkaar rek la say jëlee moo tax bon ñoom ñëpp inna samawal basaru fuada kullun ulaayka kaana anu mas'ula ay yusalu kullu waahidin minhum am maktasibu képp si ñoom ñii dañ leen di laaj la nga xamante ni moom nga fàggandiku dañ laaj dañ xool bi dañ ko laaj ana lan nga doon xalaat waaye dañ ko laaj ana lan nga façon moom xool bi lépp lu mu façon dañ ko koy laaj ak lépp loo xam ne moom la doon xalaat muy dégg ak gis lépp lu si ne dañ la laaj lan doon gis ana lan moo waral nga doon xool jëm si loolu te nekkutoon lu dagan si yow ak la nga doon déglu te nekkutoon lu dagan si yow nga doon ko déglu bon nag yii yëpp dañ koy laaj lii nga xamante ni mooy cër yooyu nga xam ne moom laa tudd léegi moo tax mu ne yusalu insaanu xamma hawaahu samaahu wa basaruhu fa adoo doomu aadama bi yowmal qiyaam dañ ko laaj lépp loo xam ne déggam daf ko làqoon doomu aadama bi yowmal qiyaam dañ ko laaj lépp loo xam ne bëtam bii daf ko doon xool doomu aadama yowmal qiyaam dañ ko laaj lépp loo xamante ni moom la ab xolom façon bon nag moom loo ab ab xolam fas ko ak lum doon xalaat bon nag loolu lu jar a bàyyi xel la ci doomu aadama bi mu bàyyi xel bu baax ci diggante cëram yooyu nga xam ne sunu borom daf ko ko jox ngir mu nekk loo xam ne ak jaamukaay yàlla la ko joxee bon mbokk yi ci loolu ñu ko nirale waxi sunu borom tabarak wa taala mi nga xamante nii wala waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne kullukum raan wa kullukum mas'ul an rahiyati képp si yéen ab sàmm la waaye doomu aadama bon sàmm la ci ay cëram daf ko war a bàyyi xel bon bon ni ñuy laajee ab sàmm ci biir këram muy boroom kër gi ci biir këram naka noonu it ah, jigéen ji ci biir këram ñoom ñëpp ay sàmm leen bon ñooñu nga xam ne ay sàmm leen ni ñu nekkee ay sàmm noonu la nga nekkee itam sàmm say cër bon nag nga bàyyi xel baax sàmm boobu bu yowmal xiyaamee dañ lay laaj sa cër yooyu nga xam ne ñoom nga doon sàmm al yawma naxtimu ab haala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulum bi ma kaanu yaksiboon yowmal qiyaam dañu tëj lépp loo xam mooy gémmañ dañ koy tëj làmmañ dootu fa wax dara tànk yi yëpp boobaa dañ leen di tëj wala dañuy tëj seeni gémmañ ñoom ñëpp bon nag su boobaa làmmañ dootul waxati bon yow mi nga xamante nii ah yowooy ab jullit na nga wattandiku li nga xaman bon mooy jëw ndax su boobaa loxo yi dañuy dal di wax lañ doon def ah, bët yi dañuy dal di wax lañ doon xool waaye naka noonu it nopp yi la nga xamante ni ñoom lañ doon dégg lépp dañ koy dal di wax su boobaa ñoom ñooy taxaw di seede ci lépp loo xamante ni doon nga ko def bon nag nañ bàyyi xel bu baax ci wàllu woowu nga xam ne si yomal xiyaam cër yooyu yëpp dañuy daal di seede li nga xam ne nga def bon na bokki li tax ñu doo wax loolu ci gannaaw na nopp yeeg bët yeeg euh, làmmañ wi yëpp gémmiñ gi lépp sunu borom daf ñu ko sàkkal ngir jaamu yàlla waaye jàmm yàlla yëpp dafay dugalaa lépp lu baax loo mën a def nga def loolu moom la ñu Cheikhul Xadim da wax ne bul déglu sa nopp yi loo xam ne dañ la koy tere nanga nga ragal ajo fayantoo ji nanga nga ko ragal yow mi nga xamante nii yow ab julit waaye nanga sori lépp loo xam ne dañ koy tere nga sori loolu bon nag sa noppi bu ci déglu lu lay tere waaye itim na ragal sunu borom yowmal qiyaam ndaxte kat yii nii dañ koo bind ñaar la waaye kay binduñ ko li kay tas tamiha ngir nga mën cee déglu biyaa ci nopp yooyu kalaama lay waxu sunu borom tabaraka wa taala bon nag lu tax ñi defal la ko mooy nopp wi nga man ci di déglu waxi ki nga xamante ni mooy waxi sunu borom tabaraka wa taala bon li nga mën a déglu ci lu baax bëri na bon nag li nga mën a wax ci lu baax bëri na nga bàyyi fa yooyu yépp walbatiku di wax loo xamante ni lu jaadaadi la di wax loo xam ne day yàq sa deru mbokk di wax loo xam ne day tax ku ko dégg sax xeeb la ca nga walbatiku amee ci loola bàkkaar te doo ci amee benn tiyaabo te mën nga cay amee sax wàññeeku wërsëg ndax léegi wërsëgu jaam dana wàññeeku fekk baat boo xam ne baat bu mu wax la moo tax aw a wàññeeku bon nag téereb suñu borom baa ngi fi xasida yaa ngi fi waaye yeneen yi euh, yi nga xamante ni ay jaamokaay yàlla la ci wàll yooyu yëpp ñu fi nga jël ci yooyu nga jàng ca nga wax ca bon su boobaa dana yokk ci tiyaaba wala nga xool lu baax la nga xam ne sa mbokk def na ko wala la jullit bu baax lam def ci yu baax ngay wax loola bokk na bon ci taxawaay yi ne mooy tax bon ñu bindal la sa noppi ak gémmiñ googu boo demee bay déglu nanga nga fexe ba déglu li nga xamante ni mooy li jaadu mooy lu baax te nga bañ a déglu jëm ci yoo xamante ni yu daganul la bon mbokk yi ñoo ngi yowal foofu waxtaan wi di leen jox daje ci yeneen i aljuma